Constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de, de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du président de la République. À résister à cette décision. Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du président, ce qui est totalement interdit. Il faut que l'on soit conséquent aussi, nous, le peuple sénégalais. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un artifice pour faire revenir par la fenêtre le troisième mandat que tout le monde a honni par la porte. Nous disons que on ne peut pas, l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel. Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème, ni des conditions de sa modification. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas. Je vous remercie. Euh, may à la suite de Amadou Sénégal muy boo xam ne dafa dal ci ñun ñëpp avant ñu nekk ay candidats à l'élection présidentielle ay sénégalais lañu d'abord te li dal tey ci Sénégal ñun ñëpp la naqari may wax ni réew mi dafa am ñu tuur seen deret dafa am ñu sacrifier seen seen àdduna dafa am ñu sacrifier seen famille sacrifier seen bopp

Nous avons ne dafa jalgati suñu constitution dafa jalgati yoon loolu nag waa Sénégal yëpp la naqari may wax le président Macky Sall Sénégal jox Sénégal defal ko le peuple sénégalais ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui nous sommes un grand peuple on doit avoir des dirigeants dignes de ce nom mais pas des dirigeants yoo xam ne dañu jël le pays jël les sénégalais en otage jadou. donc nous ñun ñi ñëpp daje fii ak ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw fekk si Nous wala ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam que nous la nous rejetons et fermement li nga xam ne que la def tey Amadou wax na campagne électorale bi minuit lay commencé tey bu subaa Inshallah dinañu campagne bu subaa li nga de ne loolu constitution bi jox loi jox ñu règlement jox ñu ko dinañ ci taxaw subaa nous lancer sur campagne campagnes, Inshallah. donc di wax sénégalais ne les lii xew tey du problème opposition du problème candidat mais problème mu Sénégal yëpp la sànq damay wax ni mbéjum kanam Borom makoy koy fayal sénégalais yi dañu mobiliser Nous, ñëpp muy fii ci ndakaaru muy ci région nous mobiliser pour récupérer notre souveraineté parce que loolu moo le président Macky Sall ne peut pas prendre le peuple sénégalais en otage Nous ñu ko nangu donc sénégalais nous bëgg mobiliser wu ba nous nga xam ne noonu la suñu ay loxo ak suñu ay ñu imposer ce xam n'est pas démocratique du loi moko teural du constitution moko teural ñu xex ko te jëlee ko fi bu ñu jógul leneen a ngi ñëw te looloo doy wa donc ma jàpp né mobilisation bi ça doit être une mobilisation totale et générale de l'ensemble du peuple sénégalais ba li ñu bëgg diko xex ci démocratie diko xex ci liberté diko xex ci suñu réew baax ci suñu réew tegu ci yoon réew mi nekk un pays de liberté

mais nous appelons à tout le peuple pour que ñu bàyyi xel ci fi nga xam ne fa la jëm ñëpp mobiliser wu ba ñu jotaat suñu liberté doxal suñu réew ni ñu ko war a doxalee may gërëm ñëpp di sant ñëpp. 19 mu am 5 ans yu mu war def 5 ans yooyu constitution ko tudd 5 ans yooyu constitution moo ni boo 5 ans yi amoo droit teg ci ñaari fan 5 ans yooyu constitution moo ni boo ko defee mënatuñu sax réviser loolu faire kon président Macky Sall bu 2 avril inshaAllah, allah mënatul président de la république du Sénégal ñaari minute duñ ko ko may ndax li président Macky Sall wara a xam que la démocratie état de droit et république la République. wara cee la sa sa responsabilité et sa posture le processus électoral bi mon président de la république lenn rek la ci convoquer le collège électoral jël un décret wo sénégalais ni leen bëss sangam di ngeen dem voter ji tan ki leen doy ngeen fal ko paré na ci leneen lu mu ci jëm du cëram amul ben droit amul capacité amul yoon wu ko ko may pour mu ni dina dakh élection mbaa dina ko reporter mbaa mu koy annuler mbaa neneen nu mu ko mëna tuddé amu ci droit motax may wax sénégalais ni man day Cheikh Tidiane djey ak képp ku gëm li ma gëm ak képp ko xamni ne gëm nga ni ngor des na ci réew mi jom des na ci réew mi te bu ay non joge won ci biti bëgg ñoo def jam nga xex ba joxe sa bakan nga gëm ni li Macky Sall bëgg ñoo def comme biru jam la man nak dañu ma convoquer ma nek candidat wara dem élection wara dem campagne électorale ñu fixer ko conseil constitutionnel ba nga xamni mo ci am cër fixer ko dana dem campagne électorale inshallah allah suba may ñaan askanu Sénégal ñu xamni ni cër bii ñu tollu temps bi temps wu peuple bi du temps Macky Sall du temps assemblée nationale du sax temps wu conseil constitutionnel bi nga xam ne dafay yombal rek mbir mi temps wu askanu Sénégal la askan woowu nag moo war a taxaw ngir gàntal pexey Macky Sall comme ni ko leader yi waxee na ngeen ñu déglu ku ci ne ci ñun suba bi nga jël sa responsabilité ndax décret wu Macky Sall bi c'est nul et de nul effet kon danañu dugg ci campagne électorale bi ci jàmm di ñaan yóbbu ko ci jàmm may woo askanu Sénégal fépp fu ñu nekk nañu génn taxaw ànd ak ñun ci caravane yi ñu baat campagne maa ngi ñaan force de défense et de sécurité du Sénégal ñu xam ni comme ni leen ko Macky Sall waxee woon en 2012 bi ñu àndee moom jàkkaarloog président Abdoulaye Wade ngir ci ngor Macky Sall ne woon na leen xam leen ni askan wi ngeen fi nekkal xam leen fi seen peuple ngeen fi nekkal te bu leen dal mukk ci kanamu peuple bi di ko di lor ci njëriñu benn président benn nit boo xam peuple bee ko fi teg loolu laa leen di delloo yooyu kaddu communauté internationale ma leen di wax ni ñëw leen lii ngeen wax ak Macky Sall balaa ngeen di fay ay taaj ay taal maa ngi wax kilifa diine yi may daaneele foofu fii ngeen toog jox nañu leen cër ormal nañu leen yaakaar nañu leen réew mi fii mu jëm tamaki Macky Sall di ko fa yóbbu boo ko seetaane mu yóbbu ko fa ëllëg seen i njaboot ñoo ciy loru tamaki Macky Sall du mën a texe du mën a wax du mën a jëf ba nga xam ni fii Sénégalais yi bëgg jëm duñ ca yegg doon asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di sant di leen. ñun Sénégalais yi mais aussi di leen mastaw mastaw parce que une élection présidentielle. est ay candidat rek lay mobiliser sénégalais yëpp lay mobiliser et ay année années. et il faut nous def ay rappel du am solo quand même ku nekk am lu parce qu'on parle du Sénégal Sénégal moi réew mi nga plus de 200 ans ñaari siècle a siècles, siècles, Sénégal mooy des mi nga xam ni am des ñaari alternance pacifique saluée par tout le monde Sénégal mooy ou au moins une élection donc comment stabiliser depuis que nous avons indépendance bataille l'élection présidentielle et je rappelle parce que j'étais là en 93 de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu j'étais encore là en 2012 sous les lacrymogènes ici à la place de l'indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'État qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le président Macky Sall est devenu président de la République. Taï, en 2024, comment avoir crise amnafi Comment avoir crise malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer, ces candidats ont fait preuve de patriotisme, ont désigné d'autres dans le parti pour que justement des élections s'organisent. Qui peut me parler de crise aujourd'hui Qui peut justifier qu'une élection aussi importante pour régir la respiration démocratique dans un pays, nous puissions suspendre un nos candidat demande à 20 candidats que vous n'allez pas battre campagne. Un autre candidat demande à 20 candidats qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus de ne pas s'adresser aux Sénégalais sans avoir à se concerter avec eux. Et je parle toujours d'un non-candidat. Quelqu'un qui est à deux mois de son départ demande à 20 candidats de il allait être à 5 ans du début de son mandat de ne pas battre campagne. Dans quel pays nous sommes Je l'avais toujours dit, le président Macky Sall dafa un ci politique. Il a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait 8 ans avec le président Ouad, 3 ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. Comment nous dafa il avait pris l'engagement d'observer et de faire observer la constitution aujourd'hui il n'a pas respecté cet engagement mais nous qui avons fait régulièrement toutes les étapes du processus ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous demander de nous arrêter. Demain, ici, sur la VRN, nous avons retenu ensemble de démarrer notre campagne, de nous adresser aux Sénégalais qui nous ont fait confiance et qui se trouvent dans les villes, les villages et les hameaux les plus reculés. Et nous, nous, nous mobiliser pour que la campagne électorale du Monédiartion dans la paix, comme on l'avait voulu donc le président Macky Sall na sais que la mais l'amour wax candidat yi nga conseil constitutionnel qui la possibilité de s'adresser aux Sénégalais c'est ce même conseil constitutionnel là qui nous a donné la possibilité d'être candidat et donc li que conseil constitutionnel vous permettre moi, même conseil constitutionnel bu me permettre pour que nous commençons notre campagne et on va commencer notre campagne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

nous nañ ci mbënd mi nañ ci mbëkk mi mbas mi xaw nañu yóbbu bi ma mi léegi waaw 1000 milliards ngeen jarul woon commission d'enquête parlementaire 750 milliards de ñu defoon ci plan décennal de lutte contre les inondations loolu jarul commission d'enquête parlementaire ak yeneen yi nga ak li dee ci géej ci 2023 donc dundalaat yaakaaru ndaw ñi ak dalal xelu mag ñi Macky Sall nee du fi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 le Sénégal dafa am rendez-vous bu mag bu histoire à partir du 2 avril Et inshallah on sera là donc maa ngi à plus de euh, une mobilisation bu bu am solo taxaw taxawaay bu mat sëkk àdduna nag ndaw moo koy bu ndaw sa responsabilité elle est engagée maa ngi leen di gërëm di Sénégal salam euh, yéen ñi nekk ci presse au niveau national comme international ñu ngi leen di nuyu di leen sant di tàmbali fàttali ne suñu woote tey bii li waral mooy ñun candidat yi nga xam waron waroon nañu dem tàmbali tey ci guddi suñu campagne électorale bi ñu dégloo le président Macky Sall dañoo décider dañuy def benn front un front de l'opposition pour wax benn kàddu wax benn say ne li nga xam ne wax na ko ñun mënuñu koo dégg te mënuñu koo nangu ndaxte nag conseil constitutionnel de am lu mu dit ne jaar len ci yoon sommes ak bi ak bi bo len bëggee nek candidat ñu ko lim conseil constitutionnel pare nañu nous yéen ay candidats yi wara dem élection présidentielle Macky Sall ne nous a pas désignés comme candidats à cette élection présidentielle il ne peut pas aujourd'hui munta taxaw décider que nous duñu dem ci élection Nous avons rendez-vous avec le peuple Nous am rendez-vous avec les sénégalais tey à partir de minuit maa ngi woo ñëpp le mouvement ARC alternative pour la relève citoyenne di wo suñuy militants suñuy sympathisants Nous sommes dans la coalition de la relève avec Anta Babacar nañu faire une campagne présidentielle dina am te tey lay tambali ci minuit ñi ngi xaar décret

Nous ñu taxaw imposer une nouvelle forme de troisième mandat de nous et on interpelle la communauté internationale voici le bilan du président Macky Sall et c'est dommage et c'est regrettable parce qu'il a failli il a failli partir au moins avec la tête un peu haute mais là Malheureusement, il vient de montrer le vrai visage. Les masques sont en train de tomber. Il essaie de faire un hold-up électoral. Ça, c'est quoi C'est un coup d'État constitutionnel. Et nous ne l'accepterons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais avant tout, avant d'être des politiciens ou des candidats. Nous sommes la jeunesse, nous sommes les femmes, nous sommes les dignes fils de ce pays. Et nous avons le devoir de répondre à l'appel de notre peuple. Le président Macky Sall et son régime n'ont jamais été à l'écoute depuis ñetti at ñenki ñenti at ñi nañu ñi joy nañu ñi na fi muy dialogue ak waxtaan conseil bonne solution benn solution xool leen li xew tey mu ne ñan la mu la waxtaan avec les présidents des institutions waxtaan conseil constitutionnel etc. etc. et cetera mais waxtaan bi solo avec le peuple sénégalais waxtaanul avec le peuple sénégalais dégluwul xamul lu xew ci réew mi lii munta ne fukki attaque ñaar dañ ko muñ daño tok diko muñal ba waxtom jeex 2012 bim koy wax vidéo yaangi fi ñun nak ay ndaw lañu dañ lay var ya ko fi waxon mako fekke fekkee maa la ñoo le dégg ya ne doo may Ablaye Wade une minute de plus mayu ñu le seconde mayu ñu le seconde Sénégal ay poñu nit moomuñu ko ku xamul li xew ci monde bi dangay jaaxle du ci Sénégal kese Afrique ndaw ñi nit nitu Sénégal nitu Afrique seen xel yi dañoo ubbeeku li ñu mënoon nangu ci ay at ci ginnaaw mënatuñ koo nangu te daf ñoo jaral lépp ndax bëgg gi ñu bëgg suñu réew gëm gi ñu bëgg gëm suñu bopp ak xam gi ñu xam suñu bopp ak suñu moomeel te duñu nangu nga koy fokkati ci suñuy loxo ni ko xeexee 2011 ñu jàppale la si nga xeex ko ba jàll noonu lañ koy xeexee yow ba mu mat sëkk ba nga jug abal ñu ñu assurer la relève et c'est la génération qui le demande je vous remercie tous les militants dañ koy caravane ba mu saf sap nañ ko taxal fii jàkkaarloog ñoom on démarre la campagne présidentielle inshallah de remercier euh, les autres candidats qui que l'union fait la force. merci. taxawal coalition Khalifa président Khalifa Ababakar Sal. Je ci un moo mais xam ngeen ni bi processus ba la ñu campagne électorale avons fait un tirage au sort pour voir candidat yi kenn ñu ak ban waxtu la ñuy am au niveau de la presse ñakul ni jamono yi mu ngi ci yoon bi di def enregistrement mu ni nañ ko fi teewal andi fi ak le maire Abdou Aziz di indi kaddu Khalifa Sall kaddu Khalifa président pour wax ni li ñu dégg ci président de la république mënuñu ko nangu mënuñu ci and ndax du kàddu yooyu moo war a jib ci jamono bi ñu toll réew moo nga xam ne dafa dëgmal élection ñu jaar fa ñu jaar yëpp ba ni c'est à quelques heures la campagne bi di ubbi nga ñëw indi ay mbir bëgg ci langaamu naan da ngay reporter élection yi loolu xel mënu ko nangu Sénégal dañ ko daan bàkk naan Sénégal réewu jàmm la Sénégal dañ ko daan bàkk di wax chantre de démocratie en Afrique Sénégal dañ ko daan bàkk naan contrairement à d'autres pays yi xam am coup d'état yéen amu leen coup d'état mais tey jii boo nekkee ci réew mi mbaa nga génn bitim réew dañu lay dab di la woo naan la lu xew seen réew mi leen dal naam amu leen coup d'état militaire waaye tey lii xew mën nañ ko tuddee coup d'état institutionnel lii mooy indi njàqare ci réew lii mooy indi kaw ci réew moo tax ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a jëf nañu ci jëf

dafa mel ni ay jullit yu jàpp ba set waxtu julli jot ñu war a ñëw julli imam bi ñëw ni tey julli amul fomm nañu julli bi loolu ndax jullit mën na ko nangu déedéet ma ni faw ñu julli bu ñu julliwul ci jàkka ji daañu julli ci jël jàkka jële waxtu julli dafa jot te loolu mooy tuddee waxtu julli moom mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu dëgbal dara mënta tee ñu dugg ci biir campagne bi wan Macky Sall ni li ngay wax waxu kasaw kasaw la waxu ko daanju saret la ndax ni ñu ko waxee amul lenn lu mën a tax ñu reporter élection yi nit ñaa ngi dem ak dikk assemblée nationale mi ngi def liggéeyam conseil constitutionnel mi ngi def liggéeyam liggéeykat yi ñu ngi dem seen bérébu liggéeykaay jàmm moo am ci réew mi lan moo sabab ñu naan dañuy reporter élection yi bëgg toogaat ci nguur gi bëgg yokk mandawam loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba looloo tax ñuy woo pour candidat à l'élection présidentielle mais au-delà des candidats le peuple sénégalais debout comme un seul homme pour faire face à cette forfaiture de Macky Sall nous disons non au report de l'élection présidentielle nous disons oui pour le respect de la constitution dis. surtout nous les diaspora et ils ont très peur et ils sont beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe dans le pays que nous-mêmes qui le vivons en direct parce que boo nekkee bitim réew di dund le sori da ngay gën a ci njàqare président Macky Sall dafa ne moom ak ñooñam ñu nekk que Burkina Faso dañ ko war sanctionner parce que dañu wara waxe kan la ñu war dem élection que Niger junte bu fa nek dañ leen wara sanctionner parce que war nañu wax kañ la ñu élection Burkina Faso Niger euh, Mali moitié du pays c'est des pays en guerre récemment il est allé en RD Congo pour l'inauguration du du président Tshisekedi c'est un pays en guerre et il y a eu des élections la CDAO, avec les certains chefs d'État ont exigé des pays en guerre et ont soumis à un régime extrêmement sévère des pays en guerre pour qu'il y ait des élections. Dans ce pays, le président Macky lui-même l'a dit, pas plus tard que quand il recevait récemment les recalés Mounilen, que le Conseil constitutionnel dogal man dara rek am mon récemment recevoir le recalé. il a dit que ce que le conseil constitutionnel a décidé il n'y a pas de recours ba mu nekkee dit sénégalais yi dina de 7 à 5 ans Mouné ne ci dara ne démissionner Je ne ci dara parce que la décision du conseil constitutionnel de recours ma ce ci ni moom

mandat de 5 ans la te kenn mënu ko réviser du parlement du monde, du Kenen. donc violez violer charte Bob avec la complicité du parlement dañuy jàpp ni kenn waratu ko obéir parce que effectivement c'est un coup d'état constitutionnel c'est un coup d'état Moi, nga jox sa bopp nguur wala un goo amut bu fekkee ni constitution bi une constitution, le 2 avril Et vous, avez yow si sa d'État. bopp nga wax ko ko Yobug par des voies totalement illégitimes anticonstitutionnelles prolonger ce mandat-là avec la complicité d'un parlement c'est un coup d'état c'est de la haute trahison c'est ça la réalité et il faut le dire le plus clairement possible pour que Sénégalais comprennent ce qui se passe il y a eu beaucoup de campagnes de préparation de ce coup d'état di wax ay reporter avant même que le Conseil constitutionnel fixe la liste avant même les parrainages commencé woon nous di ruumanaat nañu reporter élection yi nous xam lu tax ñun xam tax wax ko reporter élection parce que musul préparé wu pour jouer ci fauteuil vérité donc vous constitution choix si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays, si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle, nous n'avons d'autre choix que de battre campagne électorale et de lui dire que ce n'est pas à lui de nous imposer avec un décret qu'il sait lui-même illégal. Parce que quand il, dit, quand il a dit que je vais prendre un décret, il dit sans préjudice de ce que le Parlement décidera. Nous avons décret le parlement ndax dafa la euh, loi constitutionnelle de am sans préjudice on arrête la campagne électorale on va attaquer ce décret là effectivement faut saisir le conseil constitutionnel qui ci loi bi nga xam dañ ko fa n'a a conseil constitutionnel Nous président nee na pas président conseil constitutionnel ndax yéen da ngeen di d'accord ci li président di def ndax da ngeen nangu donc que yéen dañu leen ger ba nga xam ne situation bi graw na ba xam ne war nañu reporter élection dina leen saisir mais opinion bi tamit war na leen saisir lu ci mën a am pour bañ a guddal mooy li yi wax demee campagne électorale day commencer ñu ngi ñaan Sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk ci réew mi dëkk bu ñu mun a nekk nañu campagne ndax réew mi du réewum Macky Sall cinq ans il amul a Nous dundut nous Sénégal des émeutes mu système de parrainage honteux et odieux qui nous a conduit dans cette impasse terrible tout cela tout ce qui a détraqué notre démocratie c'est le président Macky Sall qui est à l'origine avec des appels répétés au dialogue qui au fu rendre encore la démocratie sénégalaise plus malade plus fragile plus minable donc, un énième appel au dialogue, ce sera pour les mêmes résultats. En tout état de cause, demain, comme nous l'avons rendez-vous au cimetière Saint-Lazare. Nous devons une caravane de l'ensemble des candidats. Mais ce n'est pas qu'un problème de candidat, du candidat direct. C'est le peuple sénégalais. C'est la constitution du peuple sénégalais. C'est le mandat du peuple sénégalais. C'est le pouvoir du peuple sénégalais.

vous faites au Sénégal Y na Vous bu fekkee lu ngeen di dund Nous ñu rendez-vous filles, ci euh, euh, pont Saint-Lazare bi force de défense et de sécurité à partir du moment où la constitution à laquelle vous obéissez vous n'obéissez pas à un nom, vous obéissez à une constitution à partir du moment où la constitution dit que le terme du président de la république c'est le 2 avril le 2 avril vous ne lui devez plus obéissance je vous remercie. wolof yi dañuy wax ñu ne ñu ne golo ñu ne ko mën ngaa yéeg ñu ne ko sa ngembal baay tag na waxin la ñun ñoo ne ñoo yore majorité Macky Sall bañ bëgg ñoo xañ suñu ak ak suñu yeleef nañ ko ko won ñu tay tey ñu suba ñi fi nekk ñi ñëpp wax ji jarul guddal de man duma ci sori campagne électorale minuit lay commencé yéen ñi leader yépp ku nekk am nga musique de campagne sonorisation bu minuit lan ñëpp rek ku am sabar tëggal ku am bool tëggal ku am daan ndënd tëggal parce que campagne électorale commencé na tey à partir de minuit nous mottali ko suba trois heures rassemblement de tous les candidats mais les candidats yi ñëpp ñi nga xam contre report de l'élection présidentielle et à ce rassemblement nous invitons les observateurs internationaux il faut que vous veniez constater l'état du processus électoral au Sénégal parce que vous étiez venu pour contrôler les élections. Vous ne pouvez pas vous absenter, absenter à ce grand rassemblement. Nous invitons aussi à ce rassemblement de demain la presse internationale pour que vous soyez témoins des dérives autoritaires de Macky Sall et de son pouvoir et de la régression démocratique au Sénégal Les ma ciy rek campagne électorale bi ne wax mais sur l'ensemble du territoire national et la diaspora parce qu'on a huit départements uniques dans la diaspora donc à partir de minuit je le répète campagne électorale commencé na fille du Sénégal ku la nga daan def ci sonorisation ci tëgg ci xumbal ci décliner ce programme na nga ko def salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu dama ànd ak benn délégation militaire Batoura Kane ancien ambassadeur Anako Fana Seck Bonifay ak Babacar Fall dañu ñëwoon pour déglu leen parce que déglu candidat yi dafa am solo lool parce que ñoom kenn ci ñoom kenn le 25 mënoon président de la république Tok Sénégal rupture c'est une rupture institutionnelle brutale et c'est une rupture institutionnelle que nous condamnons vous da ni la gën concerné ni ni, ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, wax ni ni, déglu leen ñun ñi wax ak ni, d'accord ci rapport. ni, lu leer deuxièmement il lu am solo problème du droit de l'homme la liberté d'expression Souvent, vous faites ne li dans la paix nañ les réprimer yéen door ay lacrymogène té koku dañ koy wax ñi nga xam ñokoy def parce que seen droit la constitutionnel bo xam mom moom wara def té lolu tamit ñin ñi nga xam ne ñu toppatoo ak ak yelefu doomu aadama ak liberté yi dinañ ko surveiller bu baax ma ngi leen di gërëm di leen sant. Les être là, ils ont eu des contraintes. Donc, comme vous avez pu le constater, l'ensemble des candidats qui sont si présents rejettent systématiquement le décret verbal qui a été euh, annoncé aujourd'hui à 14h par le président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu, qui est rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats si présents considèrent que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit au commencement de la campagne électorale ce soir dès minuit. Ainsi, tous les candidats si présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Demain, à partir de 15h, une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats et nous, nous appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage nous appelons la société civile, les forces vives de la nation à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est euh, à la croisée des chemins. La situation est grave. Le président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'État constitutionnel et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. Donc pour Tanku Kochi Wolof, candidat yi nga xamné ni nii ñoo fi daje ak ñi nga xamné ni nañu ñëw ñëw dañu rejeter systématiquement décret bobu nga xamné ni président de la république waxé remplacer ko moy remplacer décret bi convoqué won élection yi nous ko rejeter lolu le processus électoral fay continuer processus électoral bi continuer fay signifier que tey à minuit campagne électorale bi fay commencer et donc lolu moo ñu jox rendez-vous à tous les sénégalais demain point de convergence bi demain le ci pont wu c'est lazare pour ñu jël VDN bi jëm dox dem Dakar Ben bi m'a dit, candidat yi nga xam ne ni ñoo fi nous ak ñi jotul mën ñëw dinañu mettre en place une structure boo nous ne ni danañ ko waxtaanee euh, bu ko waxtaanee ba pare danañu informer presse bi mu nekk structure pour xam ne nii ci woo ñëpp ñu ñëw pas puisque n'écoule seulement l'affaire des candidats mais l'affaire de tous les Sénégalais Nous avons noté, comme vous avez peut-être pu le constater la présence du président Mamboy Diao bi nga xam euh, et malgré le fait qu'il soit malade nous avons noté qu'il dafa ñaan euh, du parce que il est très souffrant donc